Abdoul Aziz mu sunu baay Cheikh Mouhamadul Habib si ànd itam ak alxaaji Cheikh Gueye mi nga xam ni njaboot la ak alxaaji Pape Faye alxaaji Abdou euh, alxaaji Babacar ñoom Kélé Dóor mbooloo mu takku la ngir lan xam fi mu jëm si xam ci ki mu jëm si mu ni ma sama kàddu gu njëkk boo demee na nga wax sëriñ bi ñu ngi ànd ak moom di ko santale yàlla xaala jalla ilahuna la in shakartum la azidannakum tànk yi nga xam ni nag moom la fi ñëwee ngir ndokkeel si la ci bis bu tedd bii nga xam ni sunu maam soxna jaariyatu la lañu koy defal nee na mi ngi lay ñaanal yàlla nga ko jiite téeméeri at yu door ren ne yàlla am na ko sañ na ko yàlla na la ko yàlla defal nee na kóllëre gi nga xam ni ak mbokk gi dox diggante kër maamam Seydil Haaji Malick ak maamam Xaadimu Rasuul lépp matal nga ko rafetal nga ko la maam la sa maam Seydi Hadji Malick ni woon jamono ngi ñëw am alal du yéeme am xam-xam du yéeme mu ni li te tëcc mooy am kóllëre fa fil ifa ifa u fa aw fu wa naqdul ahdi min fi'lil fusuqi nee na mbàkke kóllëre googu yaa ngi ciy béy sa kemtalaayal kartal kër Seydil Hadji Malick yëpp ñoo ngi ànd di la sant l'islam gi yëpp ñoo ngi ànd di la sant di la ñaanal kalimatullahi hiya al ulya bi nga xam ne loolu dong mooy si yitte loolu dong mooy sa bëgg-bëgg ak waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu loolu képp ci ngay dox seriñ bi nee na mi ngi lay ci ñaanal di feddali nekk njaboot ci sa wet nee na bul ni guddi na bul ni naaj na bul ni tàng na Cheikh Abou mii de ni nga amee sañ-sañ ci moom di ko dox doxloo service noonu nga amee sañ-sañ ci moom di ko dox doxloo service nee na nag di la seedali cant gu wér ndax bi mu fi ñëwee nga boole ko soxna mu taxa boobaak tey bis bu ci ne day gën a rafet bés bu ci ne soxna Baali mi ngi def kémta layal kattan ngir boole gi nga ko booleeg moom di gën a rafet di gën a yaatu nee na moom loolu bu ñu demee nang ma ko seedal ci sëriñ bi yooyu kàddu la ma waxoon am na yu ci manqué xëy na mata di doomu aadama la alkamalu lillah waaye kàddu yi mbàkke yaatu na rafet na lool mu génn ci moom jëm ci yow di ñaan nag njaboot gi yal na yàlla dolli sutura màggal gi yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm delluwaat ak jàmm bàyyi la ci jàmm sa yéene ci lislaam naa yi nga am yëpp yàlla nga ko àggaleeg sa ko ku ñëw Touba ba gis université bële xolam dina seddu guyu du ma ni Sénégal waaye aalamul islam yëpp mën nañ fee ñëw wut si xam-xam kon loolu mu ngi la ciy sant la yàlla bu baax di la ñaanal nga àggale lépp ak sa ko nee na yàlla nga àggale lépp ak sa ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen bokk ci programme bi national international